Salut les amis de eSport TV, merci encore gars de la confiance renouvelée, merci de des likes, merci de des abonnés, merci également du bail et du commentaire gars. Un hein. plaisir renouvelé chaque fois de partager avec des information. inbox sénégalais. Fait pour le Montenegro, 14 régions du Sénégal, la hein. nouvelle gueule club ñu ngi leen di jaajëfal. Ñi nekk également ci à l'hôpital et sécurité de février, hein. Yalla na suñu borom fëgg seen bopp ñu wër ak jàmm. Ñi nekk ci kaso yi ngeen xam aussi erreur judiciaire ak giñ ñu deful mon leen fa yóbbu suñu borom génn leen fa delluwaat leen seen i njaboot ñi dëddu àdduna. Suñu borom xare leen àjjana fi daw ci gars yi te yéexee ñu on avance ensemble dans la magie de eSport TV, l'actualité actualité en continu gars actualité ñu fas waxtane ki nga xam moy donc Pape Alassane Gueye lañ leen indi ay leeral ci li nga xam moy donc transfert am mais également wax ci ki nga xam moy donc Ousmane Diouf le défenseur de Teungueth FC lañu ñu indi aussi mercato jëm ci moom mais d'abord li nga xam moy mooy les retrouvailles entre ki nga xam donc Pape Abou Cissé ak ki nga xam nak nag également moy Assane Diouf ñom ñaar ñu daldi dajé ci si match boo xam ne nami ñii di waa Olympiakos ñu mujjé gagner mais les retrouvailles ki nga xam moy Pape Abou Cissé nak ne ko euh, ravi kontaan na dajé dajawaat ak yow mon ami mon frère frère nekk image boo xam ne dañ koy rafetlu mais également le sourire de ki nga xam Iliman éliminé Ndiaye Iliman Ndiaye avec Sheffield United Iliman Ndiaye tay départ ah ci jogante bi euh, bi nga xam ne nañ ko tay mais ñom dañu mujjee tembo Iliman Ndiaye est entré et il a su également apporter li nga xam moy aussi li nga xam moy aspect offensif biñu soxla won Sheffield United bi nga xam également ba léegi gars dafa nek ci course pour dal yek ci champion euh, jóge championship dem ci Premier League ah loolu wut Iliman Ndiaye bi nga xam club yu bari notamment Everton wax na ko récemment ñoom ñoo mujjee déclaré bëggoon ko mais finalement m'a Ndiaye bëggut woon dem et ça c'est été avéré ki y a mooy Iñaki Williams gars yi Iñaki Williams gars yi nag fi mu ne ah, donc 251 matchs. la toog musta raté benn match Atletico Bilbao malheureusement bi mooy première fois depuis 2016 du bokk ci liste parce que dafa am blessure mu nekk record boo xam ne nag kenn du ko baat 251 match mu koy enchaîné Iñaki Williams centième match également pour ki nga xam ne mooy donc Pedri, Pedri, donc le milieu de terrain de la Roja, mais aussi des Blaugrana du FC Barcelone Pedri donc Gaï, yi démb son son centième match moi mi victoire bi sax FC Barcelone mais également joueur yi nga xam gars yi ñoo ëpp ah, donc ñi gën a cher seen transfert yi cher Ousmane Dembélé eh, jógee la fa nga xam ah, Borussia Dortmund ñëw ah, Barça jógee également Coutinho ñëw Barça yi daal mooy donc gis ngeen ko classement baa non. mais aussi Barça bi nga xam gars yi depuis Liga bi commencé commence, ëpp li nga xam pourcentage de possession de balle plus de 64 de possession de balle pour FC Barça euh, loolu donc loolu nag ay statistiques yu ma donc Real aussi statistiques dama koy parfois gars yi non Real faral Barça nga comme je dis moi j'adore le beau jeu équipe pour l'essentiel Sénégal équipe comme j'ai l'habitude de le dire Unai donc signé officiellement du côté de l'Olympique de Marseille. Je pense que le mercato bu baax pour Marseille recruter Azedine Ounahi parce que joueur bi def nek na révélation Coupe du monde avec les Lions de l'Atlas qui nga xam moy Jordan Amavi mom nak day dem ci Brest pour d'aller concurrencer qui nga xam ne donc di Noah Fadiga parce que mom mi donc Jordan Amavi dañ ko daal abal ni di équipe bi de Brest donc bu fa demee dina fa fek un certain Noah Fadiga donc concurrence ba dina neex lool ki ngeen gis ni gars également Vitinha le tout mom ci Braga lay jouer mom tamit wa Marseille dañ ko daal cibler mom gannaaw ki nga xamna moy Gonzalo Ramos bokku na ci joueurs yi gëna prolifique jamono ji fofu non nga xam moy ci championnat Portugal et ici li nga xam moy yenn résultats yi la ñu jox Auxerre moo dóor euh, Montpellier moo ko 2 buts à 1 Strasbourg bu ñëw Abdou Diallo dañ leen a dóor ah Habib Diallo dañu leen dóor 2 buts à 1 Brest donc bu ki nga xam moy donc Nord Afrique ñoom ñëw dóor clairement ñok Nantes dañu daldi euh, Tembo euh, ki nga xam nak moy Lyon mom daldi di dóor Ajaccio 2 buts à 0 moo yene kay bay de l'équipe né Lyon retrouve le sourire ndax Lyon moom gars yi match nul wala defee rek ñu enchaîné jamono ji donc tay buñu amaté amaatee ndam dina nek lo xamné ne c'est quelque chose bo xamné c'est bon pour eux et également dina leen arranger euh, lolu ki nga xam nag mooy donc Anthony Gordon wax naa leen ko le joueur de Everton bu ñom euh, Idrissa Gana Gueye signé na officiellement du côté de Newcastle mom la xam moy la pépite donc de Everton dem na signé Newcastle je pense que né club bu baax la ci mom jeune le beau aussi bo xamné Everton dina perte jeune bu talentueux mais comme on le dit rek football tamit non la ñi nak di wa Liverpool ñom nak actuellement dañoo perte ñu leen dal sen efficacité quoi Everton qui di donc euh, Liverpool dañ leen dóoraat ah tey ñi nga xam mooy Brighton moo leen dóor éliminer leen FA Cup donc deux buts à un la leen dóor di door ah donc tey benn euh, <laughs> asiatique moo leen ko def duut paajal la def donc mu nekk nag élimination euh, League Cup ah donc éliminer FA Cup éliminé Premier League neuvième place lañ nekk huitième de finale Champions League foofu lañ toll jamono ji donc ñaari trophée moo leen dese muy Prime League bi ak li nga xam mooy donc Ligue des champions Liverpool bi nga xam ne actuellement qui di euh, donc euh, Jürgen Klopp n'est pas même bu fekkee est actuellement ah, donc am nañ possibilité recruter ben attaquant ñom duñu recruter kenn ñom fas wuñu recruter kenn loolu dal mom mi di donc euh, Jürgen Klopp daal di seul l'entraîneur donc de des Reds de Liverpool qui dit Ousmane Diouf le défenseur de Teungueth FC gis euh, troisième match du Sénégal beaucoup donc beaucoup de boxing du ñu si trois matchs Sénégal et ci CHAN bi di Ousmane euh, Diouf donc n'est un jeune défenseur talentueux il a Al Hilal actuellement moo ko daal mais moom actuellement club bi dafa demandé à CAF ñu may booy bi possibilité de signer contrat am mercato bi le 31 janvier moo tax daal fi ne loolu lay def moom rejouer demi-finale contre Madagascar donc Ousmane Diouf ñu wax bonne continuation il a un contrat bi signature bi mën App, CAF kaaf may leen ko ñu daal di fay Pape Alassane Gueye centième match am la def daal di dem fa nga mooy ci FC Séville donc di leen ko yëgal Pape Alassane Gueye jël na actuellement à l'heure où je vous parle jet privé pour dem ci FC Séville egg ci guddi gi vers euh, donc h h heure française maanaam heure bi moom warna egg Sénégal des na ci kanam donc fimné ni donc mom warna egg fa nga xam donc ca France euh, plutôt ca FC Séville euh, jóge France day dem nak def visite médicale am suba inshallah allah suba si suba gi prêt nak près, prêt sans option d'achat parce que Marseille bëggut am également euh, jox leen option d'achat boobu parce que dafa bëgg am lassitude mën a waxtaan ak yeneen club et tout donc Pape Alassane Gueye aujourd'hui qui part vers le FC Séville pour avoir du temps de jeu sans Sampaoli moo xeex pour mu ñëw fo donc nak yow bonne continuation gars c'était les informations que je voulais vous donner toujours un plaisir de vous servir wooy de la like